Dans Jam, c'est une boutique Lo Déco Lo Déco nek ben boutique bo xamanteni c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xolal ma rideau yi façon couleur bu nek amna fi Lo Déco rek la Lo Déco prix en gros waye un détail. Ecorse Afrique études conseils réalisation service expertise est une entreprise créée par des ingénieurs et techniciens ayant une expertise avérée dans l'entrepreneuriat et le management global de tout type de projets de BTP et qui ont fait carrière au sein notamment des grandes entreprises de leaders du BTP. Nous intervenons sur les différents métiers du BTP et de l'immobilier, ingénierie, assistance à maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage délégué, architecture, construction, promotion immobilière et services. Nous offrons également des services conception plan architectural 2D et 3D, conception plan béton armé, construction de bâtiments, ouvrage d'art et génie civil, suivi et réalisation de devis estimatifs, quantitatifs et planning d'exécution. Maîtrise d'œuvre. Écorce Afrique se situe au cœur de ville de Kaulak. bâtiment L11 et aux maristes l'OB 67, premier étage Dakar Sénégal. Téléphone 33 336 31 31 ou le 77 255 24 64. Site web www.ecorsafrique.com. Mail contact@ecorsafrique.com. Écorce Afrique, la construction, un domaine qui nous connaît bien. Bienvenue à Mabella Sénégal, votre meilleure boutique de vente en ligne. Mabella Sénégal met à votre disposition des produits de beauté et de remise en forme, prise de masse, prise de forme, perte de poids, ventre plat des produits à base de plantes naturelles dont le Garcinia cambodja, le nopal, le cassia sena, le fenugrec, le maca. Tout ce qu'il vous faut pour être rayonnante avec des produits naturels 100% bio, sans additifs ni ingrédients chimiques. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 773 14 60. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Avec Mabella, soyez plus belle et rayonnante. capital xul da fekk dëkk ku ci siisu da fekk dëkk capital su kombine selo ñëpp dañuy laajte na mooñu dara fépp lañuy wàcce ñun dañu nice ak suñuy vibes tegal fi sa loxo ndax fi mooy capital eh. ciò voglio far capital Che le suelo mutar tan Sei tane a bello Raggio sono pir Io a bello mm, As Oui Ni ma gis ni Conference bi dina neex Hmm Conference bi dina neex la wa ah wow inshallah lolou gay amul problème Waye nak bala ñoo dem xam nga lo gis adna dañ koy préparer munoo tëb tëb rek dugg ci mbir noonu. Hmm. loo duggee ak neen neen nga ciy génne. Hmm. kon nañu waajal suñu bopp. te man xam naa ne sax day jéggi dayo ah en tout cas daal naa la wax benn mbir. Hmm. buñ ca waxee lu am solo. suñu lam fa lay tàkkee conférence kat yëpp ñun la ñuy wër di ñu conférence. loolu noonu ñuy am xaalis di ko tekki temps ak heure. xalaas loolu yomb naa gérer kànku wax na ma thème bi. jigéen ak koor. jaay ma loolu. Ah, jëlal. foo dinaa la wax benn mbir. Hmm. ren di nga mus di nga gis facette boo mus sa gis ci man. <laughs> yaakaar boobu laa am de ba joxe sa tur de. yow moom féeteel ci addis yi ak ak alxuraan yeeg yooyu yëpp féeteel foofu di tari saari di ko firi. Hmm. man nga bàyyi ma gérer jigéen ñi ak koor gi nañu war a gérer. delloo sa loxo foofu. alxuraan ak kaam sa yooyu gérer wu dugguma ci yooyu. waxtaan koor rek la nañu waxtaan waxtaan waxtaan. waaw ah, ñun am nañ ci droit waxtaane koor noonu. wax wax wax la ah, rek loolu moo ngi noonu. dinaa fa waxtaan lu rëy. Eh, moo ngi noonu loolu nag laa bëgg. Hmm. yow Nuuru looy def nii xale jigéen damay noppalu rek dalu rek. noppalu yow bëgg nga xeetu jigéen de. ka ko bañ. yëgoo ni kër gaa ngi toj. Ah, ñun papa as mi seen répétition yi ñu naan ay dañuy conférence xaw ma la te xamuñ daal. <laughs> yow nag da ngaa nag kamala papa as ak xamul dara ak fóore kamala wax loolu. xanaa dëkkuma ñoom ñoom lan lañ xam. déedéet nag nit kenn ko gis di ko jugé wala di ko sous-estimé. ñii lan lañ xam buñ xamee de maa xam Fatia bu moq sax mënuñu koo taal. <laughs> <laughs> yow nag yëpp nga bàyyi nag. yabu ma leen de fii laa doon tari ayatul kursi yu papaas di ma laaj ba xam ban way la di ma laaj way bi ban way la. déedéet da ngay wax rek xamul dara dara xamul ko ko yow it xam mm-hmm, may ma man. peut-être am na lu leen yàlla may et yu ñoom bu ñu amee fit jël contrat wu jàmm naa dañuy conférence c'est parce que am na fi ñu ko teg te man papa Fodé xam naa ne du dugg si ay caaxaan quand même baale def. lu ñëk njëkk la ñu ñu jëf ci. Hmm. nañ ko def ba keneen ku ñu gisati mën ñoo wo xolal gaay sax seen waxtaan yomb na. bon comme radio yaangi fi. Mhm. nañuy déglu radio bu baaxa baax. Hmm, waaw di for seen wax yi bu ñu leen wax leen ko. bu ñëw ba toog ba def ni Simido. da ngay nuyo ba pare. kan bi la nuyu fim mu toll nii. waaw ay ca dema. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñoo ngi ni bàyyi nañ waxtaan bi daal noonu la wax delloo waxtaan rek la bu bu mu compliqué. bu mu mën naa ko indi asalaamaaleykum ñu ngi leen yu baax di leen siyaare. fay nañ la loolu la rek méttiwul. Tala al baalu eh, eh. al. Tala al jëm fan la. Sarax Rajaban. wuy yaay. Eh, bu Rajaban jëm fan. waaye yow as kii lu dal. waaw oh, man ragal naa poids bi ëpp ma doole nuyu rajo ba ragal dem ba ci bis bi dof de dof mom du ci am comprendre bi buñ ci jógee lu bëgg mën nañ am dañuy bu ñu paree si may de kon ñun ñoo dem ñu préparé wa wa ñu ñu sangu ji rek balaa balaa mu ñoo woo parce que am na yoo xam ne da ngay jiitu sanguma sax de doon déedéet doo doo sanguwaas may eh, jàngu rek dem ba ñëw dara dalu ma damaa sangu sobi àndul ak fi jëm yo loy sangu di farata bo le nak ding ma wax sa bop yow de buñ xamé ma xam ñii ñii duma nangu sax ñu jiite ma julli ñii lan lañ xam ñii xamuñu dara faatiya bu mokk sax mënuñu ko eh, <laughs> baa li nga def nag yow nag yow nag yëpp nga gaay de yëpp ko lépp lu ñu wax du dëgg man de duma ko tardé xaw ma dinaa dem xaw ma waaye dinaa def lu tuub ba dem yóbbu sama snap ah, c'est normal da nga bëgg kaa waaw ah, baax na c'est di nga dem parce hmm? yooyu moo lay dundal yow pour nga dem gis seen defet boo demee ba am fa defet nag hmm? man duma am defet ndax man ñi ma dëkkal dama leen a xam. Ah, yow moom mënoo xam ku xam ak ku xamul tëddal fii rek sa rasa yi di gën a nëb demal rek man maa ngi ñëw dem parce que yow moom waxtaan ak yow. ci koor lañ ne de ngay nekk di xaste arrêté lii. lii lan la lan wuy jàppale ma fii waa toogal wuy sama ndey wuy wuy sama ndey wuy sama ndey wuy dëkk baa lakk dëkk bi xanaa sa làmmiñ bi sama làmmiñ bi déedéet papa sa pafoor laa tasante ñu ne dañuy dem confiné te ñoom ñoo koy kii animé yow Marie loo tax sa yuuxu yii nii man tiital nga ma di seen conférence boobu moom laa leen fekk ñu naan moom la ñuy répété <laughs> yow ñii da dee fit de ay man ñii ñii fu ñuy jëm ak ñoom man Papa Fodé maa ngi imaginer ndawaayam boobu kanamam boobu. Euh, Papa Fodé di la wax rek ne kontaan nañu bu baax a baax a baax. parce que woote rek ñu wuy si la. Mhm. loolu mbégte la. di wax ne nag ki nga xamante ne ni moom moo waral mbaboor bi. Mhm. moom moo woote conférence bi léegi léegi la woote mu ne dafa am imprévu boo xamante ni moo ko teree teew muy madame Sall. mais konoon dina fi teew mu ngi mu ngi jéggalu bu baax nag ci ñàkk teewam. di def rek pap Fodé jox la cadeau gi comme ça nga def ñaan ñu tambalé ci bismillahirrahmanirrahim agalé rahim ko ci alhamdoulillah gis nga ko ak sama jongama yi machallah sama invité yi nga waxtaan ak ñom ci thème biñ la jox ren muy jigen ak koor gi. machallah kank duñ lay nuyu baax di la sant di nuyu ñi nga mbolo mi tok fi ñep di lay wax ne machallah dal yeen yalla leen yalla defal jamm wa kontaan nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ni dal mom bu leen ci dara jëlé te surtout thème bi nga indi ren muy jigéen ak koor waaw na gën a sax ngeen yàgg ko def waa ñu def ñaan kon ñu ubbi waxtaan bi as defal ñaan foo ko dégg léegi bis bi ñëw su ma restant xaalis kan moom koy indi te moom mi laa waxal fay nañu bu yàgg lan ngay laaj ci loolu naa ko boo ko récupéré doon ko wax nu la ci wax sa jikko njub nii doo ko bàyyi mu man jub la ñu juboo ñaan ñu dem moo gën ñaanal yaa daan ñaan fi dem ya ma mag tàllal leen loxo yi comme ni ma leen ko waxee woon rek defe naa ne mbir mi sax du du mun na bañ a gudd mooy ne li ngeen indi nii dafa am solo muy hmm. jigéen ak koor tënk ngeen lépp jigéen mooy àddina hmm, hmm. jigéen dafa war a fonk boppam jigéen dafa war a xam mooy kan jigéen dafa war a gàtt tànk gàtt làmmiñ mm-hmm. gis nga jigéen boo nekkee ci koñ te taxaguñ la da war a am noo tooge parce que am na ku toog fu sori di la xool pour bëgg a ñëw kon ba bu ñëwee ba yegsi ci yow war na am lu mu fa fekk mm-hmm. kon jigéen na gën a xamaat boppam te ngeen respecté nag seen waajur yi bu baax a baax a baax a baax a baax te gis nga weeru koor bii dafa nekk weer boo xam ne weeru promotion la loo ci def yàlla la koy dubleel kon war ngeen cee mun a profité bu baax a baax a baax ci lu baax di yiwal seen bopp yiw yéen a may dégg mooy ne war ngeen bàyyi seen xel ci lépp nag ci bànneex yeeg ci mbégte yeeg ci taw tawféex yi du hmm. dégg ngeen li mu wax bànneex yi na ngeen topp yëpp bu leen ci benn raw waaw kay ah, àggal leen rek yéen a ngi dégg mu jigéen daal na xam boppam te ngeen war a xam ne yéen ñi ci suñu faaru càmmoñ yi ngeen jóge kon yéen xam ngeen ñu nag yéen def ceeg sotti si la hmm. kon na gën a baax na gën a na waa lii daal man mën naa ne kenn ku ne rek mën nga waar sa bopp mm-hmm. léegi nag su ko defee waxtaan pour mu gën a yaatu ku am question rek ngeen posé ñu mun a tontu ñu waxtaan incha allah salaamaaleykum dama benn question bu ma bëggoon laaj mm-hmm. mooy li jëm ci koor gi faratay koor gi lañ bëggoon xam macha allah mm-hmm. ah, faratay koor kañ loolu yomb na parce que dama ni la tey ji boo amee yéene bi rek farata bi yegsi na yéene bi boo ko amee rek am nga farata bi te li ci tegu mooy li ma rek gàttal sa tànk gàttal sa làmmiñ mm. réglé jigéen daal moom mooy lépp waaw macha allah. Pape Fodé ñeme na. Mm-hmm. bëgg na affaire mag. Mm-hmm. te ban Pape Fodé sax est-ce mag la. eh yow kii mag la kii gisoo boo gisee xaru kanam ngi xam ne kii ba yàlla doom pentu asamaan moo tooga naa ko bële bi na foncé. ah Pape kat comme jinax bajo. Ah, waaw yii <laughs> yow wax nga ok <laughs> yow fi nga laal noonu la jinax bajo papa as bu Pape Fodé dugg rek. moo ko ci dugal moo ko ci dugal wax nga dëgg. Pape Fodé dugal ñii. man daf may leer leerum yàlla nag kii day wax jaane kee wax daal di fidd na la. bokkuñu ci ko def ba kii du jaani kii du ñuy wax du mën a méngoo ndax moom kii day yóbbaale sa morom waaw wax nga dëgg de ñoom waaruñu seen bopp naan dañuy waaraate waaye yow it kenn rawu la man ni sa yuuxu yi yëpp ah dama tiit dama di moo tax waa dañ dem xooli xale yi yan xale saan man Papa Fodé man di dama doon laajte ndax jigéen dafa war a xaar ba koor jot mën a sol lu yiw wala di kaala kaala bu yiw loolu de laa bëggoon laajte yow kañ xanaa sax mën naa ne tontu nga sa bopp mhm. loo kañ aajuwul weeru koor sax jigéen dafa war a yiw saa su ne mhm. jigéen dafa war a sell mhm. jigéen daal lépp daal moom ci jigéen léppam awra la kon da nga war waaw jigéen awra la kon moo tax nga xam ne muuraay yeeg ak ak ak ak collu jot dafa baax daal mm. waaw ak keneen koy laaj sama question nag papa As laa ko bëggoon laaj xam nga weeru koor dafa sori te mënoo toog fanweeri fan ki nga bëggantel doo ko gis ma doon laaj ndax seeti safar ci biir weeru koor dagan na wala lislaam daf ma ciy topp dara. maa yow amagoo jëkkër. ma jëkkër. ndeysaan waaw bu fekkee far bi far bu baax la bu cool mën nga koo caaj dem xool ko. Hmm. waaw parce que du fóode ñëpp ngay xool ñu seq ak yow dara de. Oh. am na ñoo xam dañoo cool ni comprendre nga loolu dara nekku ci man li man sama wax nag laa la wax sama wax dara nekku ci. àndal ak safar ngeen plat xam nga def lu leen saf siin seen mari ŋàññ dana koy yëg. keneen koy laa koy questionné ma ne ndax dàq weeru koor ci ay ngoonement bi noonu dem ay place doxantoog yooyu noonu dax dàqaale koor daal ndax dagan na wala daganul. yow kay loolu aajowul loolu waaye moom xam na ne loolu ki àndul. di def ay dëpp dem ci geej ji dakh koor mel ni kuy dakh nit du ngeen régler tok sa keur ngay wax waxi dàq koor de li du xulo waxtan la déggoo li mu wax waxtanu koor man de ci sama xam-xam ci sama até nga sol sa deux pièces dem ci tefes gi dakh sa koor dara neeku ci bis bo fa ak man ma def eh, 1 pièce ba ñu man ak yow ci tefes gi su boba lay gëna neex sama question moy man damay tok ba ay ngor ay 2 heures yoy non may sangok sama jëkkër day damay laaj ndax loolu dagan na wala ay yow loolu neex na de yow la yow akan sangoog sa jëkkër waaw weeru koor bi akan neexoon tey maam jabar tey bay sangoondoog mom. man loolu daf maa manqué sangul ak sa jëkkër dara nekku ci dañ la koo may te bañ lay may jëkkër la kon sango bi ci la my brother de I have a dream. I want to ask you one question if it's possible. to make love, if it's good or not, because I have boyfriend. For this Ramadan, I'm supposed to make love. It's possible. It's possible. Yes, to make paka paka. Paka paka. Eh, waaye mu ni ngeen tàccu li waaye paka paka nee na ngeen tàccu moom faram lay wax nii de loolu lay laaj. paka paka kan mel ni koy jamantey paka. dara newu ci paka paka rek après seen résultat bu génnee ngeen doxal ak moom. lolu baax na de téyel fofu de. papa As. oui question bi ma doon poser moy que sama copain bi. waaw yaayam la bëggoon yobul sugar ko di laaj ba xam farata la wala. yow ya, taxaguñ la ngay wax ay ko eh man nga waxal. waaw moo war a tey génn sama question maal xulóobu ah yaayam day woor. waaw. yobul hmm, sugar da fay fekk waa fekk na ko ci bir néegam. après nga dem ci néegu waa ji ngeen wéet du ngeen seq dara ci paka paka. ah rek. dama ah, ne loolu la olof naan lu neex lu doy dañu koy dog dem ba beneen yoon ah wala <laughs> loolu baax la teyel foofu tegal sa baaraam foofu ci man sama àtte tegal sa baaraam foofu dee ko seeti dee ko seeti relation yi dangeen ko doxal ndax après bu sëy bu bu bu ci sëy yi mën a taxaw. Euh, question bi papa As laa koy laaj. Mm-hmm. dama doon laajte ñun ñi nga xamante suñu génération bi dañoo tàmm di takk cristal. cristal lan lay def ci weeru koor ndax am nañ droit bàyyi ko muy feeñ wala dañ koy làkk. takk leen ko. Hmm, takk leen ko dina ma neex takk leen ko. takk leen ko dina ma neex takk leen ko. takk leen ko. takk leen ko dina ma. takk leen cristal yéen ban génération ngeen. 2003. yéen a koy toj yéen a fi xew. ñi fi newoon yëpp année quatre-vingt bi yëpp xeewi nañ deux mille koy toj. macha allah def leen lu leen saf. yow Papa Codé sax tane na moom am na tuuti dignité mais Papa As li mu boolee bëri ñàkk na jom. Mhm. ñàkk fayda. Mhm. mën wax lu amul. ba pare mën daganal lu danganu. loolu moom mën na ko moom point point fort am. li mu boolee bëri balaa maa dee digg nit ñi di guddal kanam. na di melni fas bu jong man papa si bopam man ma ko jéppi man man ni ni dañu deuguer fit nak dëgëruñ fit nank sax man man insay eh, sama xel bi yëppañ ci conférence ba lan leen fa wara def ak ah, lan leen fa wara wax mom moma ma de man waarul de ay papa Asa ba fóore si bopam ño am fit man dama ne won dama dem yóbbaale sama snap snap leen mais dama maanu dama wor ba duñ dem ni dama ah kooku de léegi ustaas da ne daf may waar noonu. yàlla daa bëgg ko maandati. ma ne la ko kaay ñu dem ban bu ma tardé conference bi dinaa ABC de. Marie-Louise kenn du wax ABC AVC la ñuy wax. ëppal nga taw même ma sama jàmm ABC AVC ñoom ñëpp hôpital la ñuy jëmle jugal ñu dem. waaw yow demoon. te nga jug ñu dem kooku xam nga buntu kër. kooku barki yàlla bu ma demee am sama kaan na nga fexe ba bul ma woo dinaa ma partagé kook yow. man papa As. dafa amoon benn question bu mu la bëggoon laaj. xam nga man kër locataire laa dëkk. te bu may dem di sangu ji du ma bëgg daal sol ay yére. damay aj daal sama serviette. te dama dama takk ay fer yu doy waar. Mm-hmm. gis nga su ma jógee sama néeg di dox fer yi daal day yëngatu rek. te man damay laajte mbaar loolu du def dara ci weeru koor gi. yow seen kër seen néeg yi

Toi, ce que tu es, tu, es en train de dire, c'est la vérité. Là, je suis d'accord avec toi. Tu comprends hein? Mais des fois, il faut laisser Papa As. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Espèce de suppositoire. Oh, Papa As, moi, tu sais, je suis célibataire. Donc, parfois, il faut que j'ai quelque chose qui me rassure dans mon corps. Il y a, il y a des, des, des, des hormones qui sont en train de se déclencher. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je peux parfois Parfois, parfois, parfois, parfois, hein, hein, hein, parfois, c'est pas beaucoup de... Hein, hmm, faire un petit, un petit virage là. C'est ma question, papa. <laughs> eh hango no bug zai nyar sai ngen no mai ma kanko man ya karo ne buñu bo wote sa conférence bi wax jigen accord di ngeen fi wax lu am solo amul solo. déglul am na solo mooy ne booy booy woote da ngay woote ku am xam-xam mooy ni ma doon def ni sànq ba léegi ñaar ñi daal laa xam ne moom ñii moom ay exemple lañ. yéen a ngi may dégg. ma ne ñaar ñii. ay exemple lañ waaye xoolal ma ñu ci des seeni gërëfaas ah. ñii kii teg xef ba ba ba ba xolakee xolakee xefam yi nga xam ne mot na ci loolu newul samay client nag loo wax ci samay client mën naa ko wax ci say client xoola xale bi 2000 2003 nga takk cristal ne da nga koy wane noonu moo tay yéen daal man daal li ma xam ba xam ko mooy ne ah imbécile immature bii kan yow yow bësal bësal bësal bësal ba mu neex la bësal sa bës bësal sa yaram buy metti ku la koy bësal bësal Fodé bësal bës bës bës bës ba mu neex la. il y a de parti là. na nooy na nooy a nooy. bësal. yéen bañ lu baax te bëgg lu bon. bësal. li ma fi wax nag lépp di fen. bësal. ngeen ànd ak man yéen bañ lu baax. bësal. yéen a bon yéen ñii yéen ñii yéen ñëpp bësal. ngeen bañu baax ni topp ñu bon ni. bësal. Yena bon Yena a yees waay bësal seen laaju vulgaire yi ngeen ma laaj bësal bësal bësal bësal ba mu neex la bësal yéen lu baax te bëgg lu bon bësal maa ngi ñëw dem ba beneen yoon bësal ataan yi ba beneen yoon bësal capital fi capital capital. Ah, be my capital. Yeah. Capital.